moom ni fonctionnaire bi fay impôt ñoom fonc sa koy dagg ci sa salaire ngay xool xam ne dagg nañ ci nangam ka ko dagg nag moo koy moo ko war a yóbbu trésor waaye dagg nañ la ko war a dagg même bu ko yóbbuwut mais parce que dagg nañ la ko moom xamoon na ne député yi ñu ngi fay impôt waaye da ko waxoon boobu ngir bëgg a siiw waaye bëgg a siiw daa jëru nga yàq deru derum nit ñu téeméer ak juróom fukki député di ay mag di ay kilifa député mooy autorisé impôt nga ne ko doo fay impôt maanaam yaa ngi sàcc alal réew mi jooju wax dafa garaw te fenn woo fenn na ko ngir si bi mu nekkee député léegi kenn déggatul mu wax kon xam nga ko doon dëgg dégg ngeen ko fii mu ne way Mamour Diallo dafa détourné 94 milliards mais xam na xaalis nekk dem ne day moom xam na ne euh, affaire détournement deniers publics kenn rek moo mën a porter plainte au Sénégal muy l' agence judiciaire de l' état moom xamoon na ne plainte bi c'est irrecevable waaye nee na woon daa yori preuve léegi da koy jox justice waaye léegi justice nee ko yow sa ñëw porter plainte wax dëgg yàlla na boo ma sécurité përëm amul amul détournement de quatre-vingt-quatorze milliards amul Sénégal maanaam quatre-vingt-quatorze milliards dañ koo génne ci alalu mi def ko ci compte Mamour Diallo amul du dëgg dara du ci dëgg c'est-à-dire que li maintenant li ci des mooy lu mujj li mu wax nit porté ko ba lañ ne dafa violé damaa violé au lieu mu tontu ci loolu mu ne Macky Sall Antoine Diome ak ak Bassirou Guèye ñoo ma complot mais sëñ bi waxul dëgg complot boo xam ne yow yaa jóge sa kër guddi masqué wu tàgguwoo ndey tàgguwoo bàyyi tàgguwoo garde ta àndoog sëfoor dem ci barab boo xam ne même fekkee barab bu liggéeyukaay la jamonoy couvre fa normalement liggéey waratu foo naam nga dem fa musiba dal la au nga jéem a expliqué wala nga wutu lay nga ne dañ maa complot loolu aw fen wu neen la a garaaw nag ci fenu mooy fen wi dem na ba fukki nit ak wala fukki nit ak juróom faatu ci parce que waxul ne Macky ko kon nit ñi duñu wàcc ci mais Macky Sall am na ci responsabilité honorable loolu bi lay non damaa dégg nga wax ci waxu faatu yi moo tax mais la bu dee faatu yi moom Macky Sall am na ci responsabilité. non dama ne non non xam nga non non xam nga xam nga euh, aw ay ka ko ka ko sooke moo ko indi say boo nee nit ñi wàcc leen ci mbedd mi jàpp maanaam aar man ndax Macky Sall dafa ma bëgg a dafa ma bëgg a sànq daa bëgg du ma bokk ci élection ba nit ñi wàcc ci mbedd mi te la nga leen wax du dëgg yow yow ña faatu yaa leen rey c'est-à-dire li may wax responsabilité dafa leen ci laa bëgg ñu di c'est-à-dire nit ñi boo leen nañ woo def combat mortel maanaam ñëw leen jaay seen bakkan pour aar ma te yaa non seulement bu noonu war na ci ba ba ba jur ba mbooloo du dëgg parce que complot bi amut kon ña dee yaa leen rey kon encore une fois am solo mooy man li may mooy bu nit ki nekk lu may wax dama seet la dëgg parce que Ousmane Sonko keroog bañ ko gendarmerie woo dama ne ko bul dem am nga droit bañ a dem benn am na benn waaye bu bindoon article ne Ousmane Sonko ab daaj la bokk maanaam ci euh, intégriste la euh, nit dama ko dama ko caa jàppale noonee ma ko doon jàppale ca loolee damaa jàpp ne loola mooy dëgg li ma contre ko ci impôts yi parce que waxul dëgg li ma contre ko ci 94 milliards parce que waxul dëgg li ma contre ko ci complot bu mujj bii mu tudd ne moom la ko Macky Sall doon def ak Bassirou Gueye ak euh, Antoine Diome du dëgg moo tax ma weddi parce que la sëñ bi nag entre nous fi mu jógee këram kër góor gi guddi ku wul fa dem kenn xamul fu mu jëm bu fekkente ne même complot am na ci moom dimbali na ñu ko doon complot. Alhamdoulilah TV, la chaîne des valeurs et des vertus.